ki ñëween démb salaamaaleykum tey jii dama leen indi kenn ci génération bi nga xamee ni sénégalais yi am nañ ci ñoom trop cofeel li tax cofeel moo di ci ñoom la ñu xamee coupe d' de des nations parce que coupe d' afrique ko daan dégg dañ ko daan dégg toog 18 ans yu nga xamee ni demuñ ci ba génération bi ñëw indi ñu ci ci génération boobu tey ji kenn ci ñoom mooy entraîneur national Joseph Koto am na ci ñaar ci ñoom ñu nga xamee ni ba tey nekk nañ fi entraîneur Jules François Bocandé ak Boubacar Sarr Lokot nekk nañ fi entraîneur kenn ci ñoom pressentiroon nañ ko fi il n'y a pas longtemps Fall mais c'est vrai que mi ngi en France di exercer tey nag mu indi leen kenn ci ñoom ku nga xamee ni euh, le nom vous est familier yéen a ngi koy dégg Racine Kane Racine Kane mook euh, Roger Mendy dañu ànd ba xaw mel na ko ay séex ci paire yi nga xamee ni am nañ ko en équipe nationale ñu dal xeel trop ba di ma rappeler léeg-léeg Oumar Diop Diakhou Gaye euh, wala Assane Mboup Malick Diallo on en a eu mais bu Roger Mendy ak Racine Kane dafa di wax dëgg yàlla per bu nga xamee ni dafa daloon xeel trop ndox yàlla ba nga xamee ni moo di paire bi ñu yéegee si tey jii euh, ci li may tuddee peut-être la première division des nations parce que ce premier septembre 85 ñoom la woon Racine ma nga nuyu soppe yi depuis Kaolack depuis Diourbel équipe nationale du Sénégal ak en France France bi nga xam ne fa ngay vivre tey ji te ñu ngi toog janoo ko émission bi ñu soobu ci waxtaan wi Racine Kane. laay maa lay remercier ci invitation bi ah, donc euh, mënuñu la bañal dara te lépp looy def war nañu ci jàppale parce que vraiment mémoire football football bi nga defal nga ñu lépp accompagner nga ñu fa partout ah. donc. Euh, maa lay gërëm di la nuyu bu baax di nuyu aussi sama mbokk yi yëpp di nuyu sama supporter yëpp ñi nga xam ne vraiment muy waa Kaolack waa Diourbel waa Sénégal gi yëpp mhm. ñi nga xam ne vraiment ñu ngi doon ñu ngi doon jàppale doon supporter vraiment maa leen di remercier ci loolu di leen nuyu waa bu baax a baax gaañ Racine Kane euh, mi ngi nii euh, ku nekk capitaine mu Jules Bocandé ku nekk capitaine mu Jules Bocandé dugg nga ci néegu capitaine yu mag yi parce que Jules Bocandé nekk na ko ba nekk fi entraîneur Racine Kane nekk na capitaine nu Jules Bocandé Racine tout est parti de Kaolack Mbossé ban année et comment Mbossé de Kaolack. Mbossé de Kaolack euh, mun naa wax pratiquement suma carrière footballistique un peu accident la wala je sais parce que yëpp a ngi démarré ci semaine régionale. semaine régionale semaine régionale bu amoon non semaine nationale. nationale donc ñu euh, sélection benn joueur. tu doon Balbaki. Balbaki René Diouf ma nekkoon entraîneur. ah d'accord mais yow SIB nga feeñee euh, Racine SIB de Diourbel. effectivement parce que SIB la footballé donc effectivement football naa mboose une année et demie parce que ba 18 18 à 18 ans ba 19 ans mboose laa footballé c'était pas une équipe très bien médiatisée donc. Mhm. mais après ma demee SIB yàlla def yu suturee repéré ma. Mhm. jël ma yóbbu ma. SIB bu mag ah. SIB Mamadou Keita Karim Sey. yow ñoom Chérif Kandji. Chérif ah, Bonof Lamine Ndiaye. Lamine Ndiaye Karim bu mag. ak SIB tu as été champion. Euh, c'était en 83, je pense. Oui, oui. nekk euh, na champion. champion avec comme entraîneur Youssou Touré. Youssou Touré Youssou Touré yàgg na trop ci équipe bi. moom man je pense que bu ñu nee SIB Youssou Touré la ñuy wax. waaw SIB. joueurs yi fa nekkoon yëpp pratiquement recrutement bi soo ko def. oui oui. parce que euh, il était un peu en avance sur les gens bon amoon na équipe bu nekkoon sur place mais dafa jël man ay Pafal ay Bonof on était pratiquement des jeunes. ay 18 mhm. ans yooyu. Mhm. mu jël ñu pour. Mmh. avenir bi foofu mmh. vraiment relève bi mmh. et je pense que il avait vraiment compris lu tax mu def loolu et effectivement ñun ñoo jël relève bi remplacé ñoom Madié Tall yeneen anciens yi fa nekk ñooy pas bari après lañ jël euh, commencé jouer voilà SIB Racine Kane booba SIB daan na nekk ossature parce que boo nee Karim Sey ni ni Mamadou Keita ah, euh, ni Pape Fall ah, euh, Racine Racine Kane ah même Sagar Koné. Sagar Koné Bonof. ah Bonof Mor Diaw Bonof. Euh, base la woon nga nekk champion en 83 année boobu nga ñëw en équipe nationale. donc sa équipe nationale 82 laa ñëw. 82 81 82. Amilcar Cabral Guinée. waaw. Guinée non Cap euh, île du Cap Vert. Cap Vert île du Cap Vert laa njëkk a dem sélection équipe nationale. boobu ku yore équipe bi kat. y avait Gaucher. Souleymane Camara Gaucher. y avait Gaucher. oui voilà ci laa duggee équipe nationale. duggee ñëw nag fekk naa fa grand yi. oui oui donc Mor Touré affaire donc mhm. j'étais remplaçant. oui après année suivante bi nag. depuis loolu daal laa commencé. dugg parce que y avait équipe déjà qui sur place. qui sur place. voilà yéen di ñëw booba temps ñooñu ña nga déjà. finalement yéen joué ngeen ak tuuti sax. ñoo xam ne ñoo leen mag joué tuuti. Mhm. donc euh, ñu ñëw joué tuuti après grand yi dem. oui oui ñu ne ñoom Roger ñëpp. Mhm. fekk ñoom de la même génération vraiment. xamante bu baax ça a été une chance avec moi. moom mhm. mhm. mhm. dafa dox tout de suite quoi. amul voilà alors génération bi moom laa leen wax tout à dañ ci am trop respect parce que génération moo yeewu suba ñu ni bugg bëgg dugalaat Sénégal ci néeg bi nga xam ne nekkatu ci depuis 18 ans néeg boobu moo di néegu Coupe d'Afrique des Nations ba 86 demuñu fa ñii ñoo leen indi en 85 Racine bi ngeen waree delloo si équipe bi en 1985 est-ce que conscient woon ngeen ci li ñuy seenu ci yéen parce que pratiquement xamuñu woon Coupe d'Afrique des Nations ba ci yéen booba temps daan ngeen ko waxtaan yi équipe nationale. mais pas tellement pas parce que je me rappelle bi ñuy dem euh, Zimbabwe. waaw. on était inconscient man je pense bëggoon nañ qualifier équipe bi. waaw mais euh, ci match retour bi man bi ma ñëwee ba Demba Diop gis stade mu mel ci biti mu mel. daa mhm. doon tiit. Mhm. ci la xam ne. c'est important c'est important mais parce que <laughs> parce que non joué ay match rek pour man yeneen match rek mais ñëwee gis Demba Diop mu mel. Mhm. gis kii là laa commencé am frisson. léegi nag xam ne léegi lii c'est du sérieux quand am na am na lu tax nit ñi ñëw fi. am na lu tax nit ñi ñëw fi. xam nga parce que boo nekkee regroupement doo déglu rajo doo def dara. waaw entraînement boo ñibbisee sonn tëdd nelaw ah da ngay nekk ci benn coin boo xam ne doo xam pratiquement luy géej gi réer. oui oui di xaw ci dëkk bi. oui oui bi ñëwee man stade laa doog a rendre compte. voilà importance match bi. wax nga dëgg. suñu ganu tey baa ngi nii Racine Kane kii ñu ngi ay année 1984 Pape Diop est entraîneur national. di waajal équipe bu nga xam ni dafa bëgg insérer Sénégal au Caire en 1986 qui c'est bien deux ans avant le voilà Racine Kane notre invité d'aujourd'hui Cheikh Seck gardien de but aujourd'hui vice-président à la Fédération sénégalaise de football Mamadou Sala Dizal c'est la doublure de Cheikh Seck qui c'est Moussa Faye Magder qui venait de Ngor de Ngor de Ngor qui venait de Ngor qui a joué à la Jeanne d'Arc euh, qui est ici en équipe nationale Cheikh Fall de l'ASFA kii euh, Alassane Seck di RAN Sidi Ahmed Ndiaye moo nekk nii et là c'est Tidiane Diémé accroupi ici à ñu bari daañu def confusion bi ce n'est pas Bocandé c'est François Preyra di Nounou daf ñu fekk si nag ci suñu diine ndeysaan depuis euh, quelque mois léegi diit Mouhamadou Mansour Préra c'était François Préra qui a joué à la CIDEC à la Jeanne d'Arc de loin mën nga ko jaawale euh, Bokandé c'est François Préra mais léegi bu yóbboo ngeen woowee que Mouhamadou Mansour daf ñu fekk si ci suñu diine ca France la nekk woo ma di ma ko wax moom Mouhamadou Mansour Préra euh, doon wuyoo Nounou Préra Pape Fall moo nekk nii euh, entraîneur adjoint en première division française à Caen a Diakhabe da ngeen koy dégg rek El Hadj Salif Diagne le premier sénégalais champion d'Afrique en club Euh, sous le maillot du Raja de Casablanca. Amadou Diop, le voilà, le capitaine de l'époque. Adolphe Mendy, là c'est Moussa Diop Kenom, Joseph Koto, l'actuel entraîneur national. Et là, nous sommes à mi-84. Pape Diop est entraîneur, Racine Khan, notre invité, est ici ce soir. mi ngi jëm vers les horizons 85. Horizon 85 laa wax tout à l'heure léegi nag ñi ngi en plein 85 le revoilà suñu ganu tey gi Racine Kane euh, il lui arrivait d'être capitaine moom Racine Kane euh, léegi ñu ngi nii ci Cabral bi 1985 moo ko Roger Mendy ñoo doon def doublure alors Racine su fi su fi Roger Mendy léeg su musaan manqué Tidiane Diémé mii mooy jël place bi le voilà Tidiane jéemé euh, mook Racine Kane ñoo daan def euh, doublure ici vous avez Cheikh Seck hmm? vraiment inamovible Cheikh Fall bu Asfa et là Sadio Demba keroog euh, bi ñuy dellu si il a terminé comme arrière gauche aujourd'hui Sadio Demba est entraîneur en Belgique accroupi ici Joseph Koto Pape

mook Tidiane Diémé ñoo def la paire d'arrière centraux Racine Kane moom la ñuy dalal tey ji ñu ngi ba tey horizon 85 parce que Pape Diop xelam yëpp mi ngi ci Caire 86 nous sommes en deuxième division depuis 18 ans et xam na ni il a une génération exceptionnelle bu war a mën a delloosi Sénégal dans l'élite le voilà l'invité d'aujourd'hui Racine Kane qui a été professionnel je me dois de le préciser a Brest hein, qui a été professionnel à Brest moo di euh, fii fii fii daaf terminé euh, carrière yëpp dinañ ki dellu si tout à l'heure alors lii kii c'est la doublure de de Cheikh Seck Mamadou Salla Zal l'autre gardien de but donc je reviens à Racine Kane qui est ici Cheikh Sy très grand latéral à l'US Gorée je reviens avec Cheikh Fall voyez le groupe est stable parce que ce sont les mêmes noms qui reviennent Cheikh Seck est ici Jules François Bocandé je me dois de préciser que c'était à la CEDEAO fekk na déjà Bokandé dem en France hmm, mais dafa dellu si woon pour jouer euh, tournoi CEDEAO bi nga xam ne dafa amoon trop importance pour Pape Diop parce que déjà mi ngi entrevoir moom l'équipe de Caire 86 le revoilà Jules Bokandé Roger Mendy est ici et là c'est Karim Sey Karim voilà euh, qui ne pas réussi la carrière que laissait présager son talent parce qu'il y avait Jules Bocandé moom Moussa Ndaw nee naa Bocandé def carrière bi war en équipe nationale. et là je descends ici vous avez Joseph Koto l'actuel entraîneur national Boubacar Sarr Lokon qui avait fini de gagner la Coupe de France et avec l'Olympique de Marseille et avec le Paris Saint-Germain et là bien sûr du ngeen ko gaaw a ndax chevelure bu tufi bi Lamine Ndiaye. ancien entraîneur national, aujourd'hui entraîneur du tout-puissant Massende. Le voilà la vie. Pafal, je vous en ai parlé, entraîneur aux États-Unis et à Caen. Amadou Diop, ici capitaine. Et là, vous pouvez dégrer. Vous pouvez dégrer. Amogoma, occasion d'aider avec moi. Christophe Sagna. Voilà donc le groupe qui, en 85, ici à Dakar la Côte d'Ivoire. 2 buts à 0. Xalé yi dama leen di déjé bobu victoire. Xam ngeen lutax. Racine Kane moo nekk nii Pape Diop venait de battre la Côte d'Ivoire 2-0 léegi nag ñi ngay entrevoir Caire 86 l'obstacle s'appelle le Zimbabwe nous l'attendons à Dakar un certain 1er septembre 1985 septembre 1985 laa nous sommes en blanc Racine Kane ngi nii match bi dirigeant yi dañu nuit blanche dañu nuit blanche nous sommes le 1er septembre 1985 tout à l'heure nee naa leen on est en deuxième division depuis 18 ans 1968 la ñu gëj Coupe d'Afrique nous sommes en 1985 1er septembre mais bi yoon dañu bëgg dellu si le voilà notre invité du jour Racine Kane qui faisait pair avec Roger Mendy observateurs yi nee nañu c'était la meilleure paire actuellement booba temps ci jamono jooju en Afrique alors on a passé une nuit blanche parce que euh, un œil de lynx leur aurait dit dans la nuit match bi col bu weex moo koy sol moo koy gagné hmm. ci couleur bi jëlee équipe nationale en otage le blanc là ngoon sii la 1er septembre 1985 su ma leen nee un œil de lynx leen ni match bi col bu weex moo koy gañ minuit dirigeant yaa ngi ci mbedd mi fëgg nañu tous les équipementiers ma mayo bi ña ngi ko am Marzin Sport à 2 heures du matin génn 2 heures du matin dem floqué ko ci guddi gi ba 4 heures du matin gaa yaa ngi ci biti alors équipe baa ngi nii Racine Kane il est avec Roger Mendy Mamadou Taw Cheikh Seck Karim Sey si vous regardez la photo 12 lañu au lieu de 11 12 lañu au lieu de 11 parce que si Bokandé ne pa pas c'est Karim Sey qui joue au moment de cette photo qui allait faire le tour du monde les autres ont dit Karim ñëwal ñu photographier ensemble moo indi gisoo ñu nekk 12 alors que photo yu mel nii officiel dafa daan nekk 11 Karim Sey moo départul ndeysaan mu bàyyi fa une belle image à la fin du match dafa daw yanu Bokandé Bokandé bi nga xam ni moo ko teel joué dafa daw yanu ko ci kaw épaule alors groupe baa ngi nii Racine Kane Lévité Roger Mendy moom laa leen wax Mamadou Taw Cheikh Seck le voilà Karim Sey et là c'est Thierno Yu Bokandé qui vient de nous quitter Oumar avec qui il a constitué un magnifique duo au PSG moom capitaine en 85 quand le PSG était champion de France Amadou Diop bërki dem kenn dafa ni ma pourquoi ñu ko waxee boy bandi ma ne ko dafa daan joué ay magam di leen grand pont di leen di leen wat ay magam tu ko boy bandi moo tax ñu koy wax boy bandi là c'est Pape Euh, Cheikh Tidiane Fall Boulasfa le voilà monsieur l'entraîneur Joseph Koto actuel entraîneur national ngoon si 1er septembre 1985 trois de Jules Bocandé Racine Kane et Roger Mendy avaient tenu la maison alors mu mu nekk nag ngeen qualifié ñu qualifié en 85 sa première coupe d'Afrique des nations Caire 86 nga am ci ban fàttaliku Racine Caire 86 Caire 86 effectivement plaisir woon bu mag la woon pour ñun rien que pour participer. Mhm. dégg nga man l' essentiel naa participer ci Coupe d' Afrique jouer ak ñàkk a jouer l' essentiel qualifié naa bi. naa ci mhm. bokk. Mhm. Ah, mais bi ñu demee ba egg gis ne aussi ba tey titulaire laa parce que waroon nañu renforcer waat équipe bi dama gën a motiver waat. ah donc aussi yàlla def ñu football démarrer bien. Coupe d' Afrique bi yaa ngi foofu ñoo fa nekkoon woon. et vraiment amoon nañ début bu baax. ndogal yàlla rek man je trouve que accident la parce que bu ñu qualifié wul foofu vraiment mu ne équipe boo xam ne honnêtement mënoon nañu gagné. mënoon nañu mënoon nañu gagné mënoon nañu gagné coupe Racine sa duo ak Roger Mendy. Hmm. parce que généralement euh, duo yooyu li ko daan facilité mooy duo yu ñu bokk club. Hmm. dafa daan gën a yomb. sa duo ak Roger Mendy naka ngeen arrivé tissé boobu complicité mel na que ñu bokk club alors que vous veniez de clubs différents yaa ak Roger qu'est-ce que comment ça s'est passé. parce que pour commencer respect ak estime bi ñu amoon ku nekk. Mhm. ci keneen ki en plus Roger avant mi ñëw ci axe bi jeune ci côté yi. waaw ah il était polyvalent Roger fokk seen yóbbuwoon ci défense bi. Mhm. mu joué donc parce que départ bi mën na tëwloon des fois je naan Omar Touré ah bu kenn absenté Roger wala kenn bu gaañoo Roger ñëw ñu commencé joué. yow ci digg bi kan nga ci joué la à part Roger. Mamadou Taw. Mamadou Taw. ah jeune âge digg Mamadou Taw. Omar Touré. Omar Touré même Atidiane Diémé aussi. Tidiane Diémé Tidiane Diémé parce que match locaux souvent. waaw maanaam moom ñu ñu ñu joué ñëpp ñu joué ensemble. voilà voilà Ignace Coly aussi joué naa moom. Ignace Coly Sénégal euh, Angola maanaam moom Sénégal Zimbabwe sax maanaam man ak Ignace ñu joué dans l'axe à l'aller xam nga temps yooyu aller bi ñun locaux yi ñoo doon dem. waaw waaw waaw. Hmm? oui oui. au retour. le hmm. pro yi doon ñëw man je pense que benn match muy Sénégal Zaïre le pro yi ñëw. waaw. à Kinshasa. oui oui parce que même ñu ñoom bi ñëwee sax ils étaient fatigués. Mhm. je pense que vous vous rappelez gars ils ont joué la veille le samedi. Mhm. voyagé la nuit le lendemain ñu doog ñëw. voilà voilà euh, Racine Kane laa tey géej ngeen ko Racine nga jóge Sénégal ban année. 87. ba léegi yaa ngi vivre en France. danaa ci agsi parce que euh, il t'arrive nga nekk capitaine équipe nationale. Mm. capitaine. Mm. ba ci sa fameux match. en 87 contre le Zaïre à Kinshasa Racine Kane yaay capitaine ñu war dem tir au but ak Zaïre parce que xam ñu ne Zaïre ñaari tir au but la. benn bi la jour de la tabaski. ñun ñoo gagné. benn bi 87 la à Kinshasa mu war ñu qualifier pour la CAN boobu Zaïre a gagné yow yaay capitaine. alors à Kinshasa nga am problème ak Mawad parce que Mawad mooy entraîneur yow yaay capitaine. Mawad ni la dégagé le groupe bu cinq joueurs yuy tiire nga ni doo tiire bu nekk coow. non coow lii mooy Mawad dafa na jëlal quatre yi war a tiire ak yow. quatre pour yow. cinq waaw waaw dégg man dama sonn. du ma tiire. je suis pas lucide ah. te vraiment j'étais pas prêt bi. waaw mais bu nekkee nag série cinq yi jàll na. groupe yi ñëw naa ci mën a bokk su waree am deuxième tour. waaw deuxième tour naa ci bokk mais là suis vraiment fatigué. waaw mu ne ma. bu xën nga damay nangu suma brassard dootoo takk suma dootoo suma brassard <laughs> ma ne ko bu yeboo ma <laughs> dégg ñu xuloo fa ah dégg nga après vraiment ma c'était comme un père pour nous. te bokkaande bi mu waree tiire. da nga ko ni Sénégal. dégg nga li gën a neex loolu mu ne kon yow ragal nga bu xën nga dootoo dóor sama penalty Roger na dóor Omar na dóor ah, ah, kan la lim man Roger Omar ak bokkande mhm. mu ñibbisi ne ko ah ma y a problème. Roger ni dafa sonn mënut a parce que Roger il était un peu traumatisé par penalty bi contre Angola. Sénégal Angola fii bu mu deux fois. coupe du monde. waaw ah, ba gars fi sax après le match affaire yu Omar ne dafa sonn mënut a mënut ne moom day dóor après ne Jules <laughs> Sénégal. da nga ko bàyyi loolu non contre Côte d'Ivoire ok. non du kenn ma tëjee sa penalty bi sax. Euh, penalty bi effectivement Jules avait fait un très bon match. pourtant sa maman lui a dit la même chose. dégg nga bi mu ñibbee. dégg naa yaay ji daf ko ni waxoon naa la bàyyi bàyyi dóor penalty. <laughs> dégg nga Jules le jour boobu vraiment il s'est tellement dépensé sonn en plus ils ont joué la veille voyagé la nuit. egg si 6 heures du matin xam nga 7 heures du matin à Kinshasa. oui oui war a jouer l'après-midi. ñoo bokk vol boobu. dégg nga donc. il était fatigué ba xam naa fatigué na. waaw dégg nga eh, y avait des jours yoo xam ne vraiment ils étaient pas tellement fatigués li suite yoo xam ne mën nañ dóor. Mhm. mënoon nañ dóor. Mhm. dégg nga voilà ci laa ko y avait ñoom Moussa Ndaw ak ñooñu. ils mhm. étaient prêts pour tirer Moussa Ndaw Adolphe. Adolphe ils étaient prêts pour tirer ils étaient pas donc. ma <laughs> te racheter mais bàyyi penalty bi. mu ne day dóor su ma di ñëw. fekk man maa ngi toog ci banc bi bi ñu éliminé mu sumi daal yi ñëw daal di ko ci kaw bopp bi fii ndeysaan di jooye lan laa def maam yàlla ma ne ko bàyyi <laughs> laa def maam yàlla at ma accent olofam bi yooyu kan ndeysaan bi ni ne laa def maam yàlla waaw ah, ñëw maa ngi triste yërëm ko dégg nga ñëw ne ma lan laa def maam yàlla bay raté pénalti bay raté waat bi noonu ma ne ko wax naa la bàyyi pénalti Sénégal dégg nga ñëpp daan ci ren ndeysaan après ñu toog maa waat di ñëw jël ñu ñëpp félicité ñu vraiment wax lu baax daal rafet et pourtant boobu arbitre bi daf ñu sat parce que ca tiiru penalty Zahir waaye Samba Fall jàpp na ca. jàpp na mu retiré ko te. arbitre bi retiré lu ko retiré ko parce que xamoon nga temps yii commencé se passer match booy joué éliminatoire. Mm-hmm. en plus éliminatoire direct la woon. Mm-hmm. l'équipe qui recevait au retour avait plus de chance oui. parce qu'il y avait les arbitres, les matchs n'étaient pas maintenant médiatisés, filmés, oui, télévisés oui, comme léegi ah des fois lu neex la ñu doon def lu neex parce que match boobu laa gën a sonn ci match yu football Sénégal yëpp ah parce que da ngay remonté gars bi nekk sa gannaaw ñu jox bal arbitre di tiré di yëkkati drapeau day xool day xool feneen mais yaak Roger Mendy mooy seen meilleur match à Kinshasa parce que je me souviens arbitre bi di dimbale Zaïrois yi di leen wutal penalty il a tout fait

dañu waxtaan ni bu attaque adverse yi dugg ci surface bi parce que arbitre bi daf leen dugg mee penalty di défendre en dehors la surface pour empêcher ñooñu dugg fa te booba temps ñi am ñooñu am nañ doole ñoom muntu bi les Santos la woon Santos ñoom Kabongo yu mel noonu ñooñu la woon ah c'est une euh, mhm. euh, yi nga nekk capitaine. capitaine am nañ match euh, match amical Cabral yi. waaw nekk naa ci capitaine match yenn match amicaux yi nekk naa ci capitaine. ak Sénégal Zaïre boobu aller retour. ak Kinshasa bi la bi la ne yaay capitaine. Euh, non parce que bi bandi woon capitaine aussi. bi aussi a nekk capitaine. ma nekkoon capitaine. donc euh, parce que Baye bandi fi woon. fii mhm. aussi on avait fait 0-0. waaw bu métti métti sax. métti kay ah. damaa ci laa xuloo sax benn Roger. ma ne ko yéen a ngi jël risque yéen ñëpp a dem bàyyi ma fa tout dégg nga ci match aller bi aller bi waaw parce que on tenait coûte que coûte à marquer un but. oui oui mais ce jour-là amuñu réussite pour dugal. oui oui balle la la balle de Ablaye Diallo sur le poteau. manqué yëpp am na fa euh, raté raté raté raté. voilà ah Zahir. man ne Roger li ñu def mooy bañ jël but. ci la ñu waxee gars yi ngir yàlla dugalal ñu benn but. benn but rek bu ngeen dugalee benn but ñu qualifié. ñu malheureusement. voilà arbitre bi fu gars yi génne mu tiré hors jeu. tir au but. waaw ñu dem tir au but gars yi raté mu recommencé retiré waat penalty. voilà donc il a tout fait pour gars yi gagné exact exact malheureusement. Euh, loolu moo ñu fee dem Coupe d'Afrique des Nations 1988 bi ñu jógee Caire 86 tir au but ak Kinshasa Samba Fall arrête fait reprendre ce penalty qui nous ce tir au but ouais. euh, qui nous élimine nga dem France Racine ban année après après 87 87 ouais 87 après match boobu ci nga dem France ci laa dem France dem Metz ah, tu as fait Metz le club de Bok yaa Bokande dajewul non dajewul année bi Bokande jógee Metz ci laa ñëwee à Metz Metz dégg nga mooy année bi ñu gagné Coupe de France bi en 88 oui oui malheureusement joué mu bi parce que amoon problème je ñu bëri ba ñu dafa déggee dañ ni bootul Bocandé mu recommandé Racine Metz comment tu es allé à Metz. Metz euh, euh, euh, Roland Courbis. Roland Courbis. l'ami de Roger Mendy. oui avec qui toujours dans l'axe après Roger wax lu baax ci man. Mhm. après seen après mu am écho Roger il a appuyé. Ah, Roland jël si ma mu jël seen nag du moment que ils avaient les trois étrangers temps yii. boo xam trois mënoo jël keneen. Mhm. Après, envoyé au médecin. Après là, le médecin il a Bokandé, il a bien parlé de moi. Mmh. Et il a insisté, recommandé le président à ce que nous mmh. C'est pour cela aussi, je suis Diap Jules Adroger aussi. Ah oui, oui, oui. Parce que nous, parce que tant un défenseur pour football en Europe, mmh. c'était extrêmement difficile. Il y a eu attaquant, mhm. Donc, nous, là, demain, il fait une année, nous gagnons Coupe Après, 88-89, Brest en deuxième division. Ils avaient mhm. un président qui s'appelait Ivinek. dégg nga mu ne moom équipe wàcc na dafa bëgg a yéegaat tout de suite ci la ñu jëlee bi ñu bi ñu rouge te gagnoon coupe d'Europe bi at euh, étoile rouge bi ñuy gagné Marseille. jël ma at Cabañas. y avait les Paul Le Guen et tout ça les Barabé. ñu ñu renforcer équipe bi. Brest effectivement année suivante aussitôt dañoo yéeg ah. ah d' accord dañoo lay yéegee première division. voilà Brest tu as. après 92 bi déposé bilan bilan ñu déposé bilan mu coïncider tout juste ma génn ci opération. donc c' était extrêmement difficile. blessure yu genou la woon. waaw genou genou donc deux opérations. Mhm. parce que xam nga bi ñu importance yoo xam ne da ngay gaañoo mais gars yi dañu doon def infiltration. ah tu vois. parce que match bi am na importance que jeune nekk loolu moo gën a bon. oui oui day euh, ronger sa cartilage genou. Mhm. liquide bi def di nga résister football doo mais après c'était catastrophique. dafay dafay màggatal genou bi. day màggatal genou bi. Mhm. effectivement. et mhm. je l'ai payé cash. voilà à partir de 31 ans 32 ans. après nga daal di arrêté. ma arrêté joué woo sax en amateur bi nga arrêté non. non mënu ma woon joué genou bi mhm. mënu ma woon joué donc après ma pare rek. arrêté après. et à la fin de ta carrière. j'avais déggoon naa nga passé sa premier di sa diplôme premier degré français. deuxième bi c'était compliqué. c'était compliqué parce que daa passé premier degré bi ah bu ñu ko admet. donc normalement da nga war a xaar deux ans mais les internationaux européens soi-disant européens français ils avaient la délégation ils pouvaient passer mm -hmm. le diplôme l'année suivante mhm. dégg nga man aussi man j'ai insisté dama ne man suis international comme les autres wa damaa war a am dérogation bi mhm. donc euh, la direction technique française bañ ma téléphoné Ibou Ndaw Kébé. Ibou Ndaw Kébé. fa Ibou Ndaw Kébé Ndom Saalum. Mhm. explique ko situation bi. ministère bi ministère français. ñu bindee gars yi ñooñu ñoom dafa dérogation. ah d'accord bi mu ñëw di passé gi ba direction technique ñoo ko doon passé donc il m'avait à l'œil. donc xooloon naa ci domaine nekk ak ñooñu ci pendant bi yenn match yooyu quoi. a ko passé noonu. Ah, ah, d'accord dégg après jàppante ci yooyu parce que le fait que ma insister forcé. oui neexule trop quoi. oui oui donc après <coughs> mujj ñu ma ko jox. découragé retiré daal di arrêté arrêté affaire bi mais ngi la doon dégg ci euh, gazon synthétique yi. il paraît que léegi mooy sa spécialité Racine ñun amuñu ay terrain dañu bëgg nga def ñu gazon synthétique. <laughs> te dégg naa moom ngay liggéey léegi. non effectivement li wax laay dëgg la gazon synthétique ci laa nekk maa ngi ci depuis depuis 2001 2001 2002. yéen yéen fan fan nga def gazon synthétique. gazon synthétique dégg ñoom Lamine Ndiaye jaay nañu gazon am na équipe yi en France jaay na ay villes yu bëri. ay ah, gazon en France donc. mais problème bi mooy fii la a njëkk a def gazon synthétique puis en Afrique dégg nga mun naa wax maa fi njëkk indi gazon synthétique parce que bu ñu passé premier degré bi laa gis gazon synthétique bi. Mhm. Euh, direct ci nutit euh, Clairefontaine. oui ah, technique national bi. après ma dellu Marseille. c'est un José Anigos qui est gisaat fa gazon bi ma ne le centre de formation ci li ñuy entraîné. ma mhm. ne lii na baax Sénégal parce que ah ma laaj ko yëpp ñu boole ma. Euh, proposé nga ko Sénégal. waaw man maa ko indi gazon synthétique maa ko indi Sénégal lay wax ko kon Demba Diop bi yow la. Demba Diop maa indi mu indi Demba Diop indi produit indi technicien indi yëpp bi ñu demee ba ci biir après ñu écarté mu ci. ah projet bi. écarté ma ci projet mais mais mais am na yeneen yu ñu bëgg defar am na yeneen terrain yu ñu bëgg defar. Ah, mais terrain yi nag mais donc jot naa rencontré ministre bi Gakou suma voyage bële. Mhm. donc effectivement euh, euh, bu ñu soxlaa gazon Racine Kane di def loolu. Ah. Euh, en France et en Afrique dana war a gën a yomb ci football bi Racine Kane. ancien capitaine de l' nationale de football du Sénégal qui fut capitaine de Jules François Bocandé. loolu defe naa ni euh, ku ñi capitaine u bokkaande la woon euh, sa sa bët ci Racine Kane euh, dana gën a dana gën a dëgër léegi Racine football bi ban yéen ñi nekk en France yee Oumar Gueye Sène Bosquier jaar na fii temps yi yéen ñi nekk en France hmm. ban regard ngeen am ci football bi au Sénégal au bi man lu ma métti mooy dafa mel ni toujours éternel recommencement parce que man en 87 bi mu fiy jógee amoon na ay infrastructure amoon na des clubs forts. Mhm. Hmm? parce que y avait le mais léegi ma gisee dafa mel ni football bi dafa vraiment avancé wu daal li avancé amuñu club fort yu ñu waroon am comme ay ASEC d'Abidjan yu mel noonu. Mhm. dégg nga club yi amuñu ay infrastructure amuñu patrimoine te mos naa la ko wax benn pose première pierre jàmbaar bi am na dirigeant club yi fa nekkoon loolu jël leen kaay Real de Madrid dans les années 70 dañoo ñëw demande roi bi. fii entraîneur roi bi ne yóbbu leen ba buntu Madrid ne leen jël leen li ngeen bëgg gars yi xotti lu neex ci terrain clôturé vingt après buntu Madrid boobu moo nekk centre. Madrid. mu mel rek ñu nga ñëw installé Almadi. Mhm. ñu dem ba nga xam ne Almadi mooy quartier résidentiel pratiquement. Euh, oui oui Real Madrid. Mhm. gars yi jël jaay ko xam milliard lu dul jeex jënd ci ay joueurs demaat buntu Madrid. xottiwaat fu leen neex. Mm. mais ñun li li ñu yàqal mooy suñ club yi kenn amul ci patrimoine Ablaye. oui kenn amul terrain boo entraîné kenn amul centre boo xam ne mën nga fa ba centre boo xam ne mën nga fa regroupé wala ñu mel mm. noonu. ah vraiment donc pendant léegi année bi nekk club yi foo dem muy ay ASEC d'Abidjan ay euh, nutri ay WAC affaire yooyu yëpp. Espérance tunisienne ñoom ñëpp am nañ. Mm-hmm. seen centre technique seen am nañ seen lépp. nga xam ne toutes les catégories comme ni jàmbaar def ñoom am nañ ko malheureusement suñu club yi amuñu ko amuñu ko ah, donc vraiment waroon nañu dimbale ñu xool ni ñuy demee ci xel nañuy kon yaa ngi fi ñuy waajal euh, ay match yu nga xamee ni ci lañ jëm temps yi mhm. yaa ngi tombé ci waxtaanu euh, Sénégal Côte d'Ivoire bi ñuy jógee barki démb di waajal match retour bi ban mhm. yóbbante nga am ci xale yi parce que doon na leen neex ñu wan leen anciens capitaines Souleymane Sané Euh, yow euh, euh, Umar Diop et tant d'autres yu fi nekkoon capitaine Racine kat xale yi dañ ko daan dégg rek tey ñu janoog moom looy wax xale yi ci yoonu qualification. non yoonu qualification bi lu dul encouragé leen duñ douté wu. Hmm? ils ont fait un bon match à l'aller et malheureusement à la fin. Mhm. <laughs> ils ont cédé. certes aussi il y a le fait que ñu finir match bi à 10. oui ah loolu aidé wu leen aussi quand même. Mm, mm, mm. ak arbitrage bi. ak arbitrage bi loolu yëpp aidé wu leen. aidé wu aidé wu leen mais je pense que aussi il y a quelque chose à faire. Mm-hmm. parce que boo demee ba marqué deux buts à Abidjan. oui donc war nga mën a marqué deux buts à Dakar. à Dakar. Mm-hmm. donc bi ñu yàlla dimbalee ñu bañ a encaisser. tout est possible parce que 2-0 da ngay qualifié. oui deux bi ñu defee bi ñu nekkee yàlla dimbali ñu dugal ko fi. Mhm. mën nañu qualifié mais du yomb. du yomb kay. il faut ñu wax dëgg du yomb. du yomb parce que Côte d'Ivoire. expérience bu ci làmb la nekk ma ni mooy Yékini wala Balla Gaye. voilà donc ñooñu ëpp ku daanu ci Yékini wala Balla Gaye vraiment du gàcce. dégg du gàcce parce que Côte d'Ivoire du équipe bu ndaw. Mhm. xoolee équipe bi joueurs yi tombé ko ku la ëpp doole. voilà na mais da fekk aussi nga def ci li ci war. nga def ci li ci war ñëpp xam ne. bañ a regretté dara dem nga ba jeex. ni ñu koy mhm. waxee fii quoi. Mhm. mu yëngal ma dem nga ba jeex. 90 minutes def nga li nga mun. Mhm. mais kenn du ci mere. parce que daanaka ci koo xam ne moo la ëpp doole. moo la mun. ah vraiment mais bu match bi jeex sax daf lay respecté. exact daf lay respecté loolu laay demandé xale yi quand même quoi. ñu muy vraiment le maillot. def liñ ci mën a def yëpp. pour ne rien regretter. waaw léegi nag looy tàggoo Racine bu ñuy tëj émission bi. Ah, di retourner di la remercier di remercier donc euh, waa Sénégal yëpp hmm? donc euh, di wax daal pour match bi surtout. Mm-hmm. nañ jàppale xale yi. Mm-hmm. nañ jàppale xale yi nañ mobiliser jàppale leen peut yàlla mën nañ dimbale. Mm-hmm. ñu qualifier. bu ñu nee rek Côte rek baisser les bras non non non. c'est possible. dégg nga vraiment loolu daal laay tàggoo. <laughs> di nga aussi borom. Euh, voilà euh, kër gi yëpp nekk capitaine équipe nationale du Sénégal su ma wàdd benn euh, personnalité parce que xam nga ma wàdd fii enseignant te dafa di ñi nga xamee ni bu dee tànn capitaine dafay tànn modèle royukaay quand j'ai vu Racine Kane capitaine dans l'équipe de Mawad Wad comprendre naa le fond de la pensée de Mawad parce que. Mawad moo daan wax diw yaay nekk capitaine et lui a été le capitaine de l'équipe nationale sous Mawad Wade moom laa leen doon dal tey Racine Kane xale yi dañ ko doon dégg rek parce que dañ koy waxtaanee parce que franchement duo Racine ak Roger dafa neexoon Racine Roger Cheikh Seck bokkuñu équipe de mais l'entente était parfaite waaw l'entente était parfaite ba tey jii indi leen Racine Kane Racine merci d'être venu en France tu es basé où montr à euh, banlieue proche de Paris. de Paris voilà nekk quoi di liggéey ci gazon bi. ak équipement yi lépp équipement. man Mori Paye vraiment ñoo ci nekk depuis au moins. gazon et équipement. équipement tout ce qui est. Ah, une bonne direction. parce que tout ce qui est matériel mais effectivement a équipe nationale liggéey nañu ay club dañu matériel lépp quoi. Mm-hmm. donc vraiment. xalaatu Dakar yaa Mori Paye. si bureau boobu nekk à Montreuil en France. Uh-huh. au lieu kon ñu leen di solliciter à Montreuil en France ñu leen di solliciter à partir de Dakar. peut être li nga wax aussi mën nañ ko mu ñu ciy xalaat. waaw ñu ciy xalaat dégg mais foofu ci projet bi ci départ ba loolu. oui projet bu njëkkoon am ci départ bi c'était bi ñuy ñëw bi ñuy qualifié ñu dañu indi woon <clears throat> agent marketing indi euh, revêtement de sol. indi équipementier boo xam ne danoon waroon équiper toutes les équipes nationales. tous les mhm. clubs de première et deuxième division. Mhm. jox leen matériel bi ñu war. defar leen seen terrain de mhm. jël les anciens internationaux. Mhm. demander une bourse. Mhm. état bi jox leen bourse ñu dem former yi deux ans. nga wut club bi en Europe. Marseille wala yu mel noonu une semaine de formation. Mhm. deux semaines avec ce club là au bout de deux ans bu ñu ñëwee fekk fi terrain fekk matériel ni mën a liggéey dans de bonnes conditions. et peut être ne ils vont faire progresser les jeunes. ñu am équipe yu baax. leen ci séenu. Euh, na nga daal. merci ci mën nañ ko def quoi ñu lay remercier waat bu baax. jërëjëf merci beaucoup. waay Racine Kane capitaine de l' nationale du Sénégal des années 80 di defaale actualité parce que comme dañu nekk ci actualité qualification coupe d'Afrique des nations Racine jaar Dakar ma dégg ko fi changé sama programme ni tey jii foog ma indi ko xale yi nga daan dégg gis ko moom Racine kan di royukaay à partir de ce qu'il a fait en équipe nationale ba nekk fa capitaine sous Mawade Wade comme entraîneur Racine merci à la prochaine émission mbokki ñëwoon démb jërë